def nga 40 dañuy daal di ñëw ci li nga xam ne moom moo di rubrique sport ak Cheikh Ahmed Tidiane Gomis mu nekk nag ñaari sujet yu am importance yoo xam ne euh, ñii di euh, askan wi bëgg nañ ci ay leeral Cheikh Tidiane Gomis da wax lu am solo askan wi dañoo bëgg ay leeral ay mm-hmm. parce que Sénégal Égypte mm-hmm. match retour mm-hmm. Sénégal gagné Égypte par tir au but Coupe du Monde waaye après match bi am na lu xew. après match bi am na lu xew ñëpp kontaan nañu parce que dem nañu coupe du monde ça c'est extraordinaire. waaye am na lu xew. li xew mooy lan et FIFA daf doo daan. c'est vrai centaine de millions. ba pare defal ñu benn match à huis clos sanction. ce qui veut dire. ñun dañoo def loo xam ne jaaduwul. Mhm. est-ce yaa ngi may comprendre. bu baax. ba tax na fu mu nekk nii lii nga xam ne euh, FIFA bi mu defee daan yooyu <laughs> léegi nag euh, ci mercredi bii assemblée euh, mardi bii passé. Mhm. fédération sénégalaise de football toog def évaluation. Mhm. par rapport ak match boobu ak daan yi. daan yi ñu daan ñu daan footballu Sénégal. parce que ci daan boobu man damay waxaat xaw ma ndax bare naa ci ay morom waaye damay ne heureusement alhamdulilah. tax hmm, lan ah parce que ku xam football mondial ni muy doxee ak FIFA ni muy doxalee euh, boo gisee ne. ñu euh, suspe euh, maanaam ñu ne ñu benn match à huis clos heureusement mooy compétition FIFA la. du doon compétition wu euh, euh, compétition yëpp. bu mën a laal Afrique mm. xam nga loolu xam nga déjà bu sanction bi nekkoon huis clos boobu bu nekkoon euh, maanaam match bu munti am de l'équipe nationale là day. day doon grave mais compétition FIFA la. ce qui veut dire huis clos boobu du laal bu juin bi contre Sénégal benee éliminatoire coupe du monde coupe d'Afrique 2023 xam nga loolu xam nga loolu chance la mm-hmm. xoolaat leen loolu loolu xam nga rek loolu loolu moom nel alhamdulilah mm-hmm. ñun sénégalais yi beneen bi mooy dégg nga euh, euh, euh, maanaam stade bi stade mm-hmm. mais am na stade yu bari yoo xam ne yii li fa xewoon jour boobu mais FIFA dafa aj stade yooyu da leen aj kon am nañ chance am nañ chance. non non il faut que. daal non c'est que fenn laa d'accordul. Mhm. mooy FIFA fi ma d'accord ak FIFA mooy maanaam FIFA euh, ni mu ñu daanee daaneewu ko Égypte. Égypte parce que man naa ngi woon man seetaan man nekkoon naa keex gis naa li fa xew. te te li dal waa égyptiens yi fii yëpp daloon na Sénégal yi fa. loolu laa lay wax. xam nga est-ce tamit fédération sénégalaise ñoom it suñ rek toog comme égyptiens yi ñoom ñoo dem. Euh, moom laa lay wax plaindre auprès de FIFA ñun loolu laa ci gaa léegi man foofu laa d'accord ak FIFA. Hmm. mooy que booy daal da ngay daal ñoom ñaar ñëpp. xanaa du laser rek wala. laser kese la. ak ay insultes insultes ak kon li ñu euh, sanctionné Sénégal yëpp waaw fenn rek lenn laa xam le mais non mais y a eu tout saaga même ñun journalistes yi parce que tribune presse lii FIFA wax dafa leer tribune presse déglu ma baax man naa tribune presse dem leen fépp FIFA dafa ne journaliste rek moo fay toog mais quand on ñu au Caire ñun toogoon ak ay supporters. supporters ñun. ay supporters wu kii. ñoo wax. ba naxoon na xeex naxoon na fa am laajal laajal Bakary Cissé. ba man ma ñëw euh, kii cooki bi bu nga commencé gars ma. <laughs> parce non on a dit naar yi doo wax. Mm-hmm. ñun ñuy liggéey ki nii nii ñoom euh, da ngay liggéey gars yi du ñu wuyu nii kii. mais mm. est-ce que aussi du ñoom est-ce que aussi du dañoo gën a taaw wi. ñoom la ñu la ñu daj fii. dañu ko gën a taal yëpp ñu laal non non non non c'est que xam nga lan la. dama ne man foofu FIFA laay condamné. Mm-hmm. FIFA man man d'accord ma. Euh, buy sanctionné na yemale ñoom ñaar ñëpp. Hmm. parce que am am aller et retour li fa xew moo xew fii man maa ko wax man Cheikh Tidiane maa fa nekkoon bokk naa ci journaliste yi nekkoon ci matt ale ba. Hmm. waaw. Hmm. laser yi ce que payewul fii. non safoon na sax moom ah. moom laser nañ moom. laser laser la. laser dañoo laser Edouard Mendy. dañoo laser Sadio Mané lu nekk dégg na ko. ndeysaan. bi ay bi joueurs yi di dugg si maa nga woon taaw ay wax yu ñaaw. bi mm. vidéo yaa ngi fi sax. ay lu nekk. Mm. wax yoo xam ne kenn xamu ko. dañoo fayu rek. waa léegi voilà léegi waa bon fayante la. fayu fayu waa léegi booy sanctionné dangay ngay ñoom ñaar. foofu laa d'accord mais loolu du sama kii bi évaluation bi amee. Mm-hmm. bii nga xam ne sanctionné parce que bu amee sanction. non non si Cheikh Tidiane bala nga ñëw ci évaluation yi. fédération. ni égyptiens yi dem def dem plaindre ci euh, FIFA. ñun est-ce que def nañ ko. defuñu ko. ah est-ce que du loolu. waaw waaw waaw ci boo laajee naa ci ñëw. Hmm. parce que foofu tamit dafa am solo. il faut ñu wax ko te xam nga lii moo tax ma a fédération. Hmm. dañuy communiquer il communique mal. bu dee rek li ñu gën a tële ñaar la ñu gën a tële ci àdduna mooy marketing ak communication aaye ñu si. ay ñu si ba tax na mooy question yi ngay posé yow wax waxuloo kon posé da dafa waxoon nekk ci siitu fédération expliquer wax ne lii bon quand bi mu amee évaluation mardi ñu suti parce que yaa faute xam nga bu ñu la sanctionné yaa faute yaa faute léegi nag bi ñu defee évaluation yi mais kan moo fauté ñoom waaye léegi ñoom ñoom ñoom ñu may dégg ñoom situé nañu responsabilité yi muy kan ak kan ñoom xam nga lan lañ dañ ne sécurité fauté na. Mm-hmm. organisation fauté na. Mm-hmm. xam nga wax nañ ko. Mm-hmm. waaw léegi ñu ko jiite lu tax duñ leen sanctionné lu <laughs> waaw Walfadjri rédaction Walfadjri fauté na mais. njiit yi kan moo ko jiite. non mais non c'est ça. waa léegi nag man loolu laa. mais est-ce que app bi jot na aussi pour ñoom ñu génne ni kii moo fauté nan ko teg daan. est-ce que non non la. Hmm. dafa am lu am. ñoom ñu toog di waxtaan ñu ne eh gars yi nañuy waxtaan. Hmm. daan nañu waaye lan moo tax ñu daan lan moo tax. Hmm. Euh, kii euh, kii na kii euh, kii de terrain am envahissement de terrain. boobu la am FIFA nangu loolu. li gën a tax ba ñu suspendre ba ba ñu kii nii envahissement du terrain la. ana sécurité bi. ana waa organisation. Mhm. beneen affaire boo xam ne ñu ngi koy làq mooy que stade bi niñ ko defaree nombre de places yi loolu Europe loolu lépp la mais dañoo yokk dañoo créer ay yeneen place ci loge yi. Mhm. maanaam loge bu ñu def cinq personnes gars yi yóbbu fa par exemple quinze personnes surchargé ko. Mhm. lan lu tax loolu ana xaalis boobu ana xaalisu loolu nañu wax ne ah loolu ñun. dañ ko def nii de lii de lañu ñu andil comme xaalis affaire billet yi ngeen doon dégg nii ñoom nee nañu billet yi ñoom euh, nee nañu ñoom tax nee nañ ci billet billetterie bi am na problème mhm. waaw kan moo indi problème bi parce que système bi teeluñu ko euh, ils ont reconnu ça. Mhm. li ma doon wax yaa ngi fàtte. li ma doon wax fii reconnaître nee nañu que. Euh, ci côté billetterie bi boo gisee mu am problème. Hmm. parce que. bëriwoon na problème de. expérimentation bi. Hmm. teelu ñu ko def. kan ah, waaw moom moo yéex a signé. Hmm. contrat bi lié moom ak ak kii bi société bi. dañoo tergiversé. waaw il est responsable. ci billetterie bi. parce que xam nga lu tax. lii nga xam ne moo xew biir fédération loolu la. man daal wàcc sama waay la affaire wàcc daal waaw wàcc. du ma ko yërndu waaw nañu waxante dëgg. Mhm. parce que yaa eh, eh, lan moo tax am nga benn système de billetterie. Mhm. doo ko jox lépp mais yow nga ne ko dama lay jox quarante cinq pour cent cinquante cinq pour cent billet euh, wax billettage la waaye ñun duñu dépassé billettage billettage amatul. amatul. Mhm. non nañu non c'est que li may wax damay wax xam nga. bugg xam nga damay wax. parce que dégg naa des fois dañuy naan ku mel ni Ablaye Sow day toog fële wala keneen toog euh, kii euh, bu ñu laajee ci kii bi sax naan non Cheikh Tidiane Gomis day nekk ci kii. mais li may wax nañ ci apporté dama ne biétage moo xewi ñii dañoo bëgg waa commission finance bu fédération sénégalaise de football bi nga xam ne Ablaye Fall président ligue de Diourbel moo ko dirigé ñoom dañu bëgg a maanaam évoluer. mooy mooy biétage ñu koy def par euh, kii euh, par système électronique. waaw di agir comme au moyen. merci <laughs> wax nga lépp nag léegi nag commission des finance moom comme que dañoo am stade bu bees ñun dañoo évoluer nekk nañu champion d'Afrique on doit évoluer mu indi leen lu bees mais lu bees boobu moom parce que am nga lu tax. Mhm. te billetterie yooyu. <laughs> Euh, billetterie bi <laughs> foofu la affaire bi nekk. Hmm. ñoom xam nañu. foofu lu mel la foofu la mën a ne. non foofu la ñu mën non non non non. luubal daal parce que parce que bu nekkee ci système euh, kii bi euh, système kii bi kii bi électronique bi. comme hmm. ñu baal ma man maa ngi publicité moo waa jottali bi géroon kii bi. Hmm. mais ñooñu yow boo bëggee billet yow la boo demee ba envoyé dina billet yow dootoo mën a ti jënd deuxième billet. noonu la système bi bu doon système bi defoon nañ ko commencement normal. yow coxo da def ni tag. kon ñëpp nañ am billet. te benn problème du am waaw nii ngay di da def tag tag tag jënd sa billet pare nga ci. wañ def noonu man ma def noonu dootul amati ay ñëw maanaam maanaam euh, revendeurs yi dootul amati. amati dëgg la. mais mais jour bu am na woon amoon na ay revendeurs combien de revendeurs. ay baana baana billet. waaw. Hmm. waa waa membre fédération ñenn ñoo xam yore nañu billet. di jaay. mais pourquoi pourquoi et évoluer bon léegi man sanction man xam nga la laa bëgg dama bëgg comme ni ñu ko doon wax léegi ak wat ci politique. Mm-hmm. appel la nee na nga kii micro bi. ma def ko micro bi waaw nga wax ci micro bi. ma wax ko nii <laughs> léegi ma ne. Mm-hmm. dama bëgg. bu ko fëte. il faut que ñuy avancer la transparence ku faute ñu xam ne que yow faute na naka la ñu mën a waxee oui on connaît que y a des dans la sécurité oui on connaît y a des failles dans l'organisation waaw d'accord waaw qui est le responsable de l'organisation qui est le responsable de la sécurité qui est le responsable des billetteries billetterie bi ni mu demee. lu ci am na borom. lu ci nekk am na koo xam ne moom la ñu wax yow yaa koy def. Mhm. marketing bi amuñu ci luñ ci mënoon am diw yow yaa yoroon marketing bi. Euh, maanaam li ñu yaakaaroon amuñu ko euh, euh, publicité bii jàll nii anamu hmm. nu mu demee mi yooyu yëpp nit ki dégg nga mais seen communiqué bi dañ ne le le le y a des failles dans la y a des failles dans la sécurité y a des failles la billetterie point barre ñoom bi ñu fa toogoon ci réunion ba noonu hmm. ñemañ ñu sax waxante parce que man bu ma waxee wàcc wàcc na ma eh yow kaay. c'est ça en mhm. réalité. mais est-ce que bu ñu ko bu ko nee dénoncé moroomam. keneen dina mën a def li may wax nii dama koy wax parce que waxuma ko pour yàq dama koy wax pour. pour defar mën a avancer. Mhm. voilà ce qui s'est passé. d'accord et léegi euh, euh, yow sa question bi nga doon laaj. ça parce que ñoom seen communiqué bi euh, leeruloon sax bi bi ñu njëkkee jënd Seydou Sané porte-parole. bi mu génnee di wax ba pare mu ngi bi muy wax Sénégal yëpp ne ah Sénégal nee na euh, euh, Sénégal nee moom du def appel. waaw mm-hmm. loolu la ñëpp jàpp Sénégal. Mm-hmm. mais ah léegi nag Seydou Sané hier ci Walf il revient il maanaam il dafa revoir ak pensem. pensem waxaat leneen ba saa nee na non non on attendant ñu kii lii am lii am lii am. ñu soog a def appel. mais il faut que ñu xam benn affaire il faut xam benn affaire euh, l'Égypte Égypte ci daan bi ci matt bi matt bi vainqueur bi batt retour bii Égypte dafa porte plainte FIFA ci taas. Hmm. xam nga loolu la xam nga gars yi dañu defe ne que non non léegi parce que dafa ne FIFA yi dafa ne euh, taas FIFA mii. match retour bi euh, teguñu ko ci ay conditions yu normal mm. nañ ko rejoué waat loolu la wax taas de. Mm. c'est vrai. léegi nag FIFA FIFA renvoyé la responsabilité ah, au waa léegi lan la waa fédération di kii man su ma doon fédération xam lu may def ah porte nañu plainte man tam damay porte plainte FIFA ne eh xam ñoom lan la ñu wax su ma waxee fii FIFA dara day gën a yokkaat kii bi. sanction sanction. ñu rek toog xoole. mooy lii li Serigne doon wax sànq. moom la ñu toog xoole moo ñu andi lii lépp. sanction voilà léegi bàyyi nañ toog et ce qui loo xam ne ñoom seen jëmu bopp. il faut que ñu xoolaat. Mhm, d' il faut que ñu xoolaat seen i ay doxalin. Mhm. mooy que on est dans des périodes. gis nga euh, jour match bi amoon na gis nga les dernières chaises là euh, kii yooyu euh, yi xam ne moo mujjee. Hmm. ci ci kii bi fin wu stade bi noonu poteau boobu. Hmm. ñoom dañ naan duñ ko jaay dañ naan duñ ko jaay. te mujjee nañ ko jaay. waaw c'est pas commercialisé ah mujjee nañ ko jaay. ana xaalis ah, waaw. <laughs> attends où est l'argent c'est ça que le Sénégalais loolu la Sénégalais yi bëgg a xam Sénégalais dañoo bëgg a xam rek parce que n'oublie pas les matchs de l'équipe nationale c'est l'argent du contribuable c'est pas l'argent de la fédération sénégalaise de football. Mhm. mooy gérer match équipe nationale. c'est vrai c'est l'argent du contribuable. Mhm. le salaire de l'entraîneur. bi nga xam ne yokkal nañ xam naa boobu sax mu dem ay vingt cinq millions. Mhm. il sera lan il sera le plus cher du monde. kii ça Aliou Cissé vingt cinq millions ah. ah loolu vingt cinq millions gars yi ne nañ doon yokk ah man de. vingt cinq ah! millions champion ah, d'Afrique bëriwul de bëriwul ci champion d'Afrique ah, ah, ah champion ah c'est pas Afrique sax am na ñu ko ëpp xaalis oh, d'accord kon léegi <laughs> léegi léegi nañu yokkal Aliou Cissé cinquante millions nañ ko defal cinquante parce que il a gagné la CAN nañ ko jox cinquante mais cinquante millions yooyu fu mu jugee c'est l'argent du contribuable mm, mm. sunu gafaka lay jóge waaw mais les les Sénégalais doivent savoir mm, war nañu xam c'est vrai nañuy jàll ci beneen sujet bi ak weekend bi euh, la ca ajoof la ca tënk euh, euh, foofu tam beneen tappale amaat na mhm. comme que dans le sport sénégalais y a que du tappale au début tappale à la fin <laughs> li xew Diourbel ci weekend kii Louga Louga mm. ak li xew fële nga xam ne moom mooy Guédiawaye mhm. on a frôlé la mort parce que entraîneur euh, kii arbitre xaañ nañ ko toj nañ bopp bi. Mhm. entraîneur daan na daan euh, na yóbbu nañ ko euh, hôpital. Mhm. yooyu yëpp am na li xew. xam nga lan la Ligue Pro def démb. Ligue Pro mu réunir bu saa toog réunir bu saa jël jël affaire bi comme ni waj <laughs> doon wax patate chaude mu jël affaire bi rek jébbal ko kii commission de discipline. Mhm. waaw am na yoo xam ne. danga koy jël yow dangay ngay jël ses responsabilités. Mm-hmm. nga ne lii la lii def na kii daan na dama koy daan. looy jox commission comme mais yow yow yow en attendant yaay joxe sa daan. daan mm-hmm. waaye jël ay mesures wuy xon yi léegi boo leen koy defati boo defetee nii xon yi yu yëfu tappale yooyu seen communiqué bi c'est du n'importe quoi. mais lu tax wa bëgguñoo jël. ay non non c'est que noonu mooy dama lay wax dama lay wax benn affaire boo xam ne moo waxee gis nga Ligue ak fédération ay affaire de copinage la kenn bëggul attaqué sa morom dafa mel ni ci plateau bi nii se tey jii nii ma toog ne ak ak Serigne Gueye. Hmm. ñeme ñu ma leen attaqué parce que xam naa bu ma leen attaqué ñoom tam ñu attaqué ma. waaw ci ne hmm. da sàng sa morom. dama la sàng sa bopp dama la xamal nga xamal ma. ok hmm. <laughs> noonu la. boo waxee bii ma tam man ma man ma wax bi am na ñoo xam ne am na ñoo xam bu ñuy dem euh, kii euh, euh, dañuy màtt dañuy naan. xaar ba ñu tudd ma rek. <laughs> maa la ko wax ku ma tudd ma tudd. <laughs> ku ma tudd ma tudd la rek. Hmm. <laughs> li fi xawoon nii nangam nangam. Hmm. man dañ ma koy wax. ate man dañ ma koy wax. nee naa la man su ma doon eh, eh, ñoom li ñu may wax su ma ko doon wax loolu rek def na journal loolu rek def na dossier loolu rek def na dossier. dee ko wax nag. non ñoom li ñuy topp di wax ñoom ñoom parce que ñoom. seen biir ñoom kéwante wuñu. bëggante wuñu dañuy maanaam damay toog nii ak kii ak waj mais réunion ñu nekk wéy wéy nii nangam mais fekk woo man li may wax waj nii gëmuma ko. fekk yaa ngi yor lay set ci wetu ko côté boobu laay sow à raison. mais loolu ñu ci tënkoo coach. ak fi ñu bëgg suñu sport euh, continuer ca est que loolu dina dem. bu fekkente ne ñoom ci seen bopp dañ faa toog pour ku ci nekk sa gafaka gën a duuf. nga am yoo xam ne ay faay la nga koy def doo ko reconnaître yow sa bopp bay reconnaître sa morom est-ce que loolu dina tax sport bi ak fi ñu bëgg mu egg fa mu egg fa. surtout fédération ak liggéey liggéeyam surtout nag. Mm. Euh, ci ci football local bi nga xam ne ni tey jii dañ cee war a sukkandiku pour gën a mën a ñoŋal euh, wàllum sport. Mm-hmm. Euh, wàllum football fii ci Sénégal. Mm-hmm. bu fekkee am na rëkk-rëkk yooyu te ñii nga xam ne ñoom ñoo def rëkk-rëkk yooyu kenn du leen sanctionné parce que ñoom seen bopp dañuy nëbbalante ci seen biir est-ce que loolu dina dem. moom laa lay wax c'est pas du ñu avancer long. Mm-hmm. les responsabilités une fois situées il faut sanctionner la FIFA euh, euh, Sénégal du Mhm. mais sanctionné na ko. bien sûr ah. nëbbalu ko dara. ah waaw da lay sanctionné. Mhm. tey jii ñun ñuy wal Walfadjri Cheikh Tidiane Gomis bu fi defoon benn kii nii mais dañ may sanctionné. waaye foofu duñ la sanctionné. waaw ma waaw non non non damay laaj population sénégalaise dama ne ñoom ñoo bind ñoom ñoo ñoom ñoo tax seen réunion ñu ne y a des failles dans l'organisation. y a des failles dans la sécurité moo tax mu am envahissement du terrain moo tax mu am jet de euh, projectile moo tax ni nangam moo tax lii moo tax lii loolu moo indi problème moo tax ba FIFA sanctionné ñu waaw léegi nag ah wàcc loo doon diriger sécurité ñaata hmm. yow la am nay failles kaay tu es responsable Serigne hmm. yaa ron son organisation hmm. waaye ñoom waxeewuñu ko noonu xam nañ lay wax Eh, eh, eh, loolu wolof di wax Moussa mu ne xaw ma naan ci ci néeg lañ koy kii. pootum biir pootum biir ci néeg mais pootum biir boobu sax man man man li fa xew sax xam naa ko waxuñu ku nekk dafa da ngay wax waaye da ngay nit ki non c'est que c'est et xam ne mu ngi commencé 9h jeex 23 kon lañ fa wax bëri na. waaw waxuñu fa dara <laughs> dara duñ ko fa wax. Mm-hmm. mais mais mais bu ñu bu weesoo loolu li xew ci week bi moom yaakaar naa ni bu ñu fàttali ko defe naa en 2017 la ak la xewoon euh, ci ak Wakaam euh, ci waa euh, ba ay moor amoon ci est-ce que pour ñu mën a bañ li amoon ci week-end bi ak Ligue Pro du dañoo war a jël ay sanctions teg ko ci ay doomu aadama du man loolu laa leen wax dama ne man loolu lañ doon xaar pour ñu mën bañ a lu mel noonu doon xaar Ligue Pro hmm. Ligue Pro mu ñëw rek sanctionner sévèrement durement hmm. soutenir responsabilité yi enquête bi en France année bi quand euh, Marseille mu dem fekki Nice e ci match boobu ñu jël euh, xaañ euh, Payet dañ ko dóor euh, kii bouteille mais euh, ligue de football professionnel française avant que xoolal ca saase ca avant que week-end bi avant beneen week-end bi dem lañ jël ay daan jël nañ daan yi ba pare waaw nee nañ eh diw sanction diw sanction diw sanction pare nañ ci Mm-hmm. dem nag loxoti waa ji sànni butéel bi. Mm-hmm. non affaire bi xoola mujj kii ki mm-hmm. waaye fii. dañuy récompenser rek. dañuy waaw <laughs> kooku ma ne kii res euh, organisation bi kii sécurité bi ne la wóor ne dañ koy tàcc wuy booy wuy tu as fait du bon ci stade ca Matam. <laughs> ban bon boulot dañ ñëw sanctionné. c'est vrai. FIFA daf ñëw daal cent et quelques millions lañ naka joxe. à ah, cent et quelques millions yi xajul ci xajul ci euh, petite catégorie bi. Mm. bien sûr xajul ci football féminin. Mm. xajul ci club yi. xaj na fa. non c'est mm. que de grâce pour fu may daanale mooy bu ñu buggee defar suñu football nañu dem ci transparent ak dégg nga maanaam beesal. d'accord évoluer. Mm-hmm. comme ni ma doon wax ci billetterie bi. Mm-hmm. saa a été une chose boo xam ne extraordinaire. moo mhm. ànd ak stade bu bees bi. moo ànd ak stade bu bees bi. idée boobu la commission des finances de la fédération sénégalaise de football idée boobu la am. Mhm. mu ne na xaaral xam nga lan la dañuy bàyyi lële dem indi benn euh, société privée ne ko am. gérer lii. d'accord waaye kooku bi muy gérer dañ cent de ngay gérer. gérer li ci des waaye li ci des bàyyi ñun ñoo koy gérer billet billet nii. d'accord billet billet nii. billet boobu nag. <laughs> ñu jaar ay ñu jaar fa bon léegi léegi man je les invite ci euh, affaire billetterie nañ def conférence de presse woo journaliste yëpp. incha allah ne boobu gars yi expliqué billetterie. ñu leeral ci. waaw gërëm nañ la sant nañ la. mbir yi leeroon na macha allah bàyyi la nga tàggatoo ak waa waaw naa leen di euh, nuyu comme d'habitude rek. Damas mhm. Adama Ndaw comme d'habitude. Ah, waaw tata Adama Ndaw ñu koy nuyu tamit ñi nga xam ne caa bi daf leen féete ginnaaw maa ngi leen di ñu ñuy seetaan. ak ñu nekk ci hôpitaux yi. Ah. surtout ñooñu. Mhm. ndeysaan muy euh, euh, ñuy faj. ak ñi ñuy faj. Mhm. ñëpp maa ngi leen di nuyu. di leen di ñaanal jàmm ak salaam dégg nga. Euh, ci loolu euh, vraiment kii lé euh, leneen nag damay wax nag. ministre des sports Matar Ba. ak ministre de l'éducation. kan la. xam nga Macky Sall moom day ay ministre man man jàpp ma ci kan la. Thierno la Thierno Talla waaw yéen ñaar sincèrement dafa am benn affaire boo xam ne waa INSEP les élèves professeurs xaw waa INSEP. wala Mamadou Tall INSEPS. waaw ñi génne euh, kii euh, ñi génne lan euh, waa INSEPS. Mhm. dégg nga. Mhm. ñu ngi dow seen ginnaaw pour ñu pour ñu maanaam dugal leen. INSEPS enseignement supérieur la non enseignement ah, supérieur la Serigne Mbaye Thiam. c'est mhm. INSEPS enseignement supérieur la kon Cheikh Oumar la kon Cheikh Oumar la en tout cas nañu jàppale ñooñu. waaw bu dee boobu non mënuloo dem ba def formation génn di chômer. di sonn ba pare am ay problème ñoom ñëpp man loolu laay tëjee sama émission. ñu jàpp professeur ñu ngi ci xëyu ndaw ñi nee nañ de. Hmm. xëyu ndaw ñi. waaw ndaw ndaw ndaw ñu waroon a jàng. ñu ne dañ leen di xëyloo. ba pare ñiy jàng ba pare amuñu fu ñu leen. voilà waaw ah. xoolal xam nga loolu beneen affaire la. donc na ci na ci ministre bi wax. voilà moom Mamadou Talla. ndax ak Matar Ba. waaw. ak Matar Ba. Uh-huh. Mm-hmm. Euh, moom. Euh, ah moom moo nekkoon fii kudd def kii boobu. Euh, euh, euh, xam nga ñebe kilo ñebe 4000. ah kilo ñebe 4000. Ah, moom la woon ah. ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay gërëm bu baax di la di sant. ñu lay gërëm bu baax di la di la sant loolee mooy pàcc bu njëkku émission bi laataa ñaareelu pàcc bi nag dañuy dem sargal ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu mbokk sponsor ñu dellusiwaat ci plateau bi.